baɗigol ɗum allah jahalo bantara ferem new life animal farm natale andiɓe mobele jaam feɓe jahallinde yeɓe saji yo bondele damen walla e basanna damen to new life animal farm natale kaluñala fita nde sajiyol dilala mel yalanko ni asamba yasidi tilikilin tilifula ay fa hanide sajiyol ɓe bulle mel yalanko i warata andum fanan ila jata kende a sabatita amanke bonna sebe damata bara ko fana me yaron ko albe lafirin ka furu sidol ke maño bitolu anin kulliyolu nga sa jol sodole a kendema ana betema new life animal farm felenting ale jiboro koto al se fotono mol male ane nyin nombal to 7979495 wala 203 2924 atol fana mel yaron ko atol le diaspora al se mol sodona ane nyin nomba tole plus 120 696 320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 mi wula f animal farm natale kalu ñaal fita nte sajiyol di la la mel yalan ko ni asambo ya siti tili kilin tili fula ay fa ani de sajiyol be bulle mel yalan ko i warta andum fana ila kende a sabatita amanke banna selo dammati baratul fanaŋ mel yalan ko albela firin ka furu sitol ke maño bitolu anin kulliyolu nga sajiyol sotole akendema ana betema new life animal farm felenting ale jiboro koto al sefra no mol male ane nyin nombal to 7979495 walla 203 2924 atol fana mel yaran ko atol lebe diaspora al se mol sunu nani nomba tole plus 120 696 320 75 bor nang alina al laban nasal sajiol sang alhamdulilahi rabil alamin mbokk yi ñu sant yàlla bu baax julli si yonent bi rek sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ko dee defee saay nekk rek di sant su ñaari waajur yi di leen ñaanal ñu xare ci àjjanay firdaw si yàlla néewuwaat leen rek beneen yoon rek képp ki nga xamante ne rek yaa ngi seetaan Gambian Talents Promotion ñi nga xam ne ñoo nekk si diaspora bi ak ñu si réew mi ak képp ki nga xamante ne rek yaa ngi ñoo topp ci YouTube bi ah, wala si online bi rek ñu ngi laa nuyu bu baax a baax a baax di la dalalaat rek beneen yoon rek ah, si seen tambaam Tambambalu show ñu faral di leen ko indil Wednesday bu jot nag half past seven ba um, nine o'clock ñuy jégalu nag tey si time bi rek ah, because ni mu fa demee la waroon naa start bu yàgga ñu mënta ñàkk am nga yéen a ma gën a xam Gambia bi ak nim dee mel ak eh, yeneen ak yeneen eh, waaye nag noonu la xam nga soo amee guest bu màgga soo amee yenn célébrité foog mu take time bala ñoo ñëw eh, su ko defee nag tey nag si seen Tamba Mbali ci nuñ ko dee fareel di defee saa yu nekk rek léeg-léeg indi fi ay ministre indi fi ñi nga xamante ne ñooy um, celebrity yi indi fi woykat yi gis ngeen last week ñu ngi fi indi woon DJ Lumbe ñu ngi ko nuyu bu baax a baax a baax uh, su ko defee rek uh, noonu lañ koy defee saa su ne rek nee naa leen ne Tambambalu show bi képp kuñ fay teg rek uh, am na looy liggéey ci réew mi li nga xamante ne ñëpp a ngi see teg seen but wala nga nekk concentré seen wala nga nekk ki am talent wala nga nekk ki nga xamante ne yaa ngi yëngu si politique beeg yooyu noonu ñooñu la ñuy indi di waxtaan ak ñoom su ko defee ñu waxtaan everything du ñuy bàyyi dara nag dañuy duga dugga duga duga dugga ba nga xamante ne xaw ma ndax tey suñ gan bi fan la ñuy mujee maa ngi moom waaye fii laay lépp di leeree ah, su ko defee dañ dee am waxtaan bu yaatu te neex bu interesting bu nga xamante ne yëpp dafay leer ndaxte ñuy seetaan every time loolu lañ di expect ñu indil leen ko ak ah, kon nag tey ah, ku ne xam ne ne advert bi fan yëpp mu goon ñu indil leen fi ku mag mag ki nga xamante ne mun naa wax ne sooy compter célébrité si Gambia bi mun nga ko see boole ndaxte jigéen jàmbaar la mu ngi def liggéeyam mu ngi amee business mu ngi nekk ci benn ruxam ah, mu nekk nag si TikTok bi nekk everywhere nit yi xam ko bu baax a baax a baax ah, kenn du ku dul Sainabou Mbye borom saas nga xam ne man euh, su may compter jigéen jàmbaar ci réew mi dama koy boole parce que man dama bëgg a jigéen bi nga xam ne dafa gëm boppam nangoo liggéey nangoo ñëfe te di faaj life am nekk independent lady te moom xam naa ne ci jigéen yooyu la bokk dinaa ko bàyyi nag mu nuy wante askan wi comme niñ koy faral di waxee saay nekka tungu ne du teew ñuy nataalu te mu ngi teew dañ koy bàyyi mu nuy wante askan bi rek ñu xuus jaar comme niñ koy defee amul ragal su jeexee rek jeex na duñ ko may dara te xam naa ne duñu may dara nuyu naa la. fay naa <laughs> may dara. <laughs> waaw man <laughs> it's getting interesting already. yeah te ne maa guñ fenn. Mm-hmm. so maa ngi nuyu ñëpp rek. Mm-hmm. Um, man maay Sainabou Mbye. Mm-hmm. Um, di borom sax. Um, ma ndaw nag. di daan nga nice gars wax nañ ne nice <laughs> I know xam <laughs> nga man affaire rafet rek laay dégg so again maa ngi tudd Seynabou. Mm-hmm. Um, Seynabou Mbaye um, my borom Saks yeah sax nag it's um it's a uh, business. waaw dina ñëw si loolu um, Seynabu xam nga man dama dee wax dama dee wax ne man la. géej yoo la ma la dama bëgg a buñ ko saax saaxee dama bëgg ñu am interview bu neex waaw di ñëw si loolu xam naa ne di nga ñëw si <laughs> loolu ndaxte loolu lañ la xamee te eh, loolu bokk na li tax nga ñëw fi waaye di nga ñëw si loolu mm-hmm. xam nga man su ma dee wax dama dee wax man la géej njoor ñaambeeg maam xaase maag seena bu ah, doomi ndeyam ak baayam seti maamam ah, yow soo doon tagga seena bu mbay te seena bu mbay nekk géwél naka ngay taggee sa bopp <laughs> mun nga xam nga mbayam yi na mbay mbasu am na mbay neneen waaw man na géwéle parce que yow doomi géwéle xam naa waa day géwéle rek waaye bëgguma daaneel seen bëgguma ñi daanu ñi xalangu ñi di jalgati dama bëgga ñi ñi daanu ñi xalangu ñi rek may sey bu mbaay basu rek mu em fa cam <laughs> loolu am <laughs> Ah. Ah, mbokk yi loolu am na solo nii rek lan faa demee ah, ndaxte dañ bugg affaire si mu am live ñun ñoom ñu happy bu kenn stress mm-hmm. nii la rek ku nekk fi nga toog rek seetaanal te na lépp rafet mm-hmm. buguñ ay saaga buguñ wax ju ñaaw <laughs> na lépp rafet rek nañ rafetal yëpp xam nga dañ miin sometimes ñu ñeneen yi xam nga suñ indee yeneen façon nit yi suñuy comment nañ saaga dinañ wax loolu mënut a ñàkk nag waaye nag noonu la parce que olof Njaay mu ne ku boot bukki xaj boo la te da nga xew nag suma <laughs> sista <laughs> <laughs> waa gis nga. Mhm. affaire yi ñëpp nuñ laa bëgg ñun su la ñëpp bëggee rek du baax. waaw so foog am ñu la bañ. Mhm. ñuy tax saa yu nekk ngay gestu naan man dama war a gën a ñefe. Mhm. ndax suma noon bi bu mu parce que am na ñoo xam <laughs> every day ñu ngi téye seen toothbrush socc di xaar lu ñoo ree ah so daf dee sometimes. they keep doing that. that keeps pushing. and loolu moo laa tax ngay gën a dem si kanam so man. anyway duma dee booda waaw loolu am solo loolu <laughs> ndaxte soo su amee sax eh, ku boot bu kii xaj boolo comme ni ma ko dee waxee soo nekkee si yenn milieu yi soo public figure yi foog nit ñi wax si yow foog tool yu bari waaw they always say that like when you're famous mm-hmm. it always comes at a price. Everybody's in your business. Mm -hmm. You cannot control it anymore. Definitely. You cannot control who's going to like you. You cannot control who's going to hate you at the end Definitely. of the day. So, linga def rek my mind's a business. gën a ñefe xool ci kanam rek bañ a gëstu <laughs> loolu am na solo lool am ñu tàmbali rek comme niñ ko dee baaxoo di defee saa yi nekk fii nag dañ am benn noom comme ko fi ñëw rek di ñu wax euh, kanaay Sainabou Mbye Sainabou Mbye fan la jógee Sainabou Mbye fan la dëkka Sainabou Mbye fan la jàngee bugga nañ see xam tuuti euh, su ko defee ñu wéyandi rek comme niñ koy defee saa yu ne. Ah, Mm, soo ma <laughs> laajee loolu dama seen sawar parce que first of all Sainabou doomi Gambian la mm-hmm. ok um, doomi Gambian la juddoo Latrikunda Sabiji mm-hmm. waaw ñëpp xam nañ mbayeen biir Latrikunda Sabiji kër bu mag mag kër ngi wel mm-hmm. laa juddoo kër gu xumba kër gu ah kër bu jax neex taay mi xale ku ñëwul foofu mbayeen boo ko <laughs> waaw <laughs> foog nga taay mi xale ay dama foog diñ ma gisee léegi ñu ama nga mel ni ku fooy time xale waaye ñu seen bu fooy time xale moo tax ñi moo def nii mu ko def man maa fo <laughs> pare ña dina pilee la akara yi léegi dañoo nekk seen mobile pilee game ñun dañ pili bam dañ padi ñadi dañ akara maañoo waaw xay dan sig maañoo ba soo sala soo <laughs> lu nekk nañ akamaa fox nag ok mbégte boobu nag laa ànd magaa moom mhm. waa I know how to have fun mhm. Gambian be because they normalize um complex. Mm-hmm. See Gambian bit of a complex. Always tanga diskutie bopam. You're not even allowed to be happy if you're always happy. Kita for upa. You're not. In fact, it's good for the soul. Yeah, because because my status. To be honest with you, my status. You know how many people tell me, "Go King Hindai." <laughs> Why you open the door to talk <laughs> yow mu ëppalul. tooguloo bi fii ci Facebook rek. waaw foog ñu la. war a nekk somebody ku represent dara si société bi. exactement waaw bi am na ah, njëriñ ko ëppal naa ëppal ëppal ba toog fii ah macha allah ba continuer ko. ko mm-hmm. loolu sa gaar laaj la. ah su ko defee rek ñu continuer. yaa ngi ñu doon wax kanaay Sainabou Mbye. yaa maa ngi comme ni ma ko doon waxee maa ngi juddoo Latrikunda Sabiji. maa mm-hmm. ngi fa. Year Yerofa. Um, School term at I've schooled in the Gambia and I've never been outside for schooling and all that. <laughs> Ilajange, Jehal Small School, Nekas Business. Man school up in Gambia Heights and. No, no, no, no. I was in Masrule though. Okay. I've passed through a lot of schools. su ma la fi toogee di limat foog loolu ne danga nekkoon benn ku stubborn ki nga xamante ne dañ laa suspendé Suspended suspendé excellent on my digoron boba but then come on yeah yeah <laughs> that's good after nga jeexal high school left nga any tertiary institution are you noonu yeah i was actually doing business training at um fini uh, Inside Training. Inside Training. Yes, I did um, business management mm-hmm. and Inside Training. That was mm-hmm. before I got married. So when I got married, I focused on the marriage and yeah, and that's where I. Mga saying about yanga. Shut up. Yeah. Nisam am nika halibut rek, topan magelek. <laughs> Wait a minute, it's fine. You know, I'm here bokkuloo ci that idea ne su ma seeyee rek dama war a bàyyi lu ma def bàyyi jànga bi non non non bàyyi liggéey bi bàyyi yooyu well to be honest li taxoon ma it's not actually by janga it was a mm-hmm. break because hidna yangi say yangi dika goro mm-hmm. affaire janga ngi indi the problem hanga at the end nga wara choose janga bi ak be bi pour inde gum jama mm-hmm. xam nga rek nga bëgg sa jikër bëgg def lolu rek pour mbegal gaay at least nga ne okay hara but situation bi li ñu seen nakane waaye affaire dem xam nga nga nekk ci doom ñëw su yaagee nekkul yow sa yaay ne doo mën a dem school responsibility dañoo bëri si sa bopp bi be doo mën a dem school <clears throat> okay mm-hmm. but it was always not um bothering me that much because at the end of the day I know I'm the entrepreneur type mm-hmm. yes you need after bi nga xamee ne jàng bi moom bi doxut bi liyu danga ko fa paak no no no actually mm-hmm the the goal was even small um I'm small whatever degree that I was looking for, yeah. I was still gonna push the business. All the people that knew me since we yeah, because school. Yeah, because dañ like um ku kuy def business wala ku bëgg nekk entrepreneur ni dut muy janga That's a lie. You need to be educated mm -hmm. first to have that respect and then am the know-how a lot of things, if you see Mankorde, eh, it's mm-hmm. because of Janga Bima Jangala. At the end of the day, there are a lot of things that I'm doing. There are people out there, they cannot do it because they're not educated. Mm -hmm. Okay. I'm not actually i um living in belittling uh, anybody or whatsoever. But fuck nga am um, a little bit of educational background sometimes to be able to do things. Definitely. You understand? If mm-hmm. you look at the um, <clears throat> online marketing I do, mm-hmm. I make sure always when I'm on top of my game, you look at how many people are on my field doing business like the way I am doing. Mm-hmm. How many of them have a website? Yang no, them. no, no, wait. I'm gonna hijack. <laughs> <laughs> it's not easy, okay? How many of them have a website and mm-hmm. how many of them are even daring to have an app. I'm about to launch my app soon. Definitely. So I am running my Congratulations. business. Congratulations. Of course, thank you. <laughs> Understand, I'm not actually trying to boost, but I'm just telling you how I am I'm um, structuring my business. Yeah, because a lot of people um I'm um, the know-how. Exactly. Uh, Not only the know-how, but also the passion and also the the the the the ability to actually try to know exactly what I'm doing and try to acquire more knowledge. Just because, okay, you I'm Fenanga M, it's mm-hmm. school in doesn't mean and then I am not a dropout, okay? I graduated yeah. and I was fordering, which is not by force. You further because you want to further. Mm-hmm. it's a choice. So it should not actually stop you from doing whatsoever you want to do mm -hmm. at the end of the day. It didn't stop me. The small book, I can do whatever I want now. Mm -hmm. I can achieve whatever. I'm, I'm young okay, I have time. Mm-hmm. <laughs> okay. And I'm I'm no more married. You I have the time. Mm-hmm. Okay, it's what do me there, Macne. Mm-hmm. Um, I can sit the whole day without saying that. Saying about, not it's um, no problem. After all, because um, you start from somewhere. Right. Um, lan nga starté bi business be. So you ko mëne wax rek parce que nit yi nit nañ pour xam loolu fan la seena bu dooree parce que dara xëyul rek sotti everything started somewhere ba nga egga si level bi nga egga léegi seena bu fan lam starte. Euh, doo dina ñëw si maareet beeg yooyu noonu ba dañ bëgg a concentré si sa carrière euh, ba fi nga toll right okay um well so ma laajee loolu I'm always very happy because mm-hmm. a lot of people have this concept ne oh Seynabou xëy na dafa am ko ko ubbil business bi or Aki ah, hale bunda obi nakala moju gerek tumni. Maybe somebody sponsored Say, her can support or something. Can no. could saga now? No. Ah, paski fi fii xale jigéen yu bari ñun ah, gis nañ ne business yi dañ koy jël rek di ko mbuboo waaye am na ñu nekk seen gannaaw. waaye fu mu mujjee at the end of the day that day feeñ. I've been running this business for more than four years. Nobody claimed it. It's mine. It's mm-hmm. all mine. I started it from scratch. Okay. I started the business Fekamangi Birsma dombi. Actually, I started as a makeup artist. Okay, mm-hmm. I'm a makeup. I, <coughs> I started out as makeup artist. Kirbilane kon hamga yangi say bole ko atligay. It's not easy, mm-hmm. okay? So you are at home, nga janga sa major makeup because I was someone that was always passionate about makeup. Mm-hmm. I always used to because man, I'm someone that um, I discovered myself at a very young age. Mm-hmm. I knew dama ko daan Must go to class man jeere school ba liggéeyal business bopp <laughs> sama business bopp mm-hmm. okay so i i knew from a your very young age i'm someone that is not going to be under someone mm-hmm. it's not like i am proud you want to be independent I was lady born to lead Mm-hmm. Okay, I was born to be in front, and you know that's that's it. Even school, man, you see me guti grubini. Okay, no, I used to rule. Man, I was a one man soldier. Pati sadama dem pati man kina fecha was I was always like that. I was always trying to stand on my own. Okay, it's not. It, there's a difference between someone naked living in or just you knowing you always have to because at the end of the day you can always be an example man i know i can always lead other follows well even my business i do a lot of things i see people doing now i know they did it because i did it because you lead and they and follow, they follow. <laughs> and that's what i was born to be <laughs> so understand guys. Mm-hmm. yeah something like that mm-hmm. so makeup, makeup artist, makeup art, makeup, mm-hmm. uh, makeup artist, so Balamudon started makeup just a little story when I was studying mm-hmm. uh, the makeup, the kojanga, the kojanga. And then when I... Uh, sma- makeup be? Okay, I did an online class. Okay. okay. I'm not self-taught, to be honest. I did online training <clears throat> by one South African lady momo don defaral uh, online training on makeup mm-hmm. be ma mokal then my settle small hobby through friends and family members be ax makanambi but I feel no ok small loxo set my léegi mm-hmm. and then now yala def maa am halis ma dencoon that was two thousand five hundred dollars mm-hmm. you started with two thousand five hundred dollars yes I keep saying that I mm-hmm. started my business with just two thousand five hundred dollars understand nga I just bought everything I needed to buy and then I started working like that and saving be my jënd suma machine because I had because man I had a dream of having a business empire, uh, like a, a beauty empire, mm-hmm. where it's going to be a one stop Bohamantene. If you come in there, you can have your hair done, your clothes uh-huh. done, your skin done, your makeup done. You don't have to go out. Understand? That mm-hmm. was always a dream for me. That's what I wanted to do. So I was setting that up even from home I didn't have a shop yet, so I was at home doing the makeup. and then I have the tailoring. Di, di, No. And then while I was doing that, I was shaving and looking for a shop. Mm -hmm. So when I finally got the shop, then we moved shop. My shop being a at Tabo Koto. Yeah, that was your first shop. Yes, that's where I started in the first building. Bimanyue Fufununu. Um, Damafeka like Nyeti um, shop not four, like four shops. Mm. Sika so I started the first one because I was the first person to to um, um start there anyway. Ma ik sika no nekafa the koti koti koti koti the I occupied the whole building and town melon start guys start the struggle ba egg si parce que ñëpp xam nañ start in the family. nga started from uh, two thousand five hundred ba pare started, ngi starté si kër gi ngay struggle naka la meloon si sa struggle boobu noonu ba nga egg si foofu noonu yan li lii gàllankoor nga am si yoon benn obstacle ok um it if I say it was easy, I'll be lying. <laughs> it was not. Come easy with on, mm -hmm. to be honest um, see, when you're going somewhere, mm -hmm. people will try to fight you. And then yala tamit dina la the detestfully. Mm-hmm. So it's just a whole lot. I'm on your fight to sidelines me. Walala. Should have, you know, shut up! I just don't want to talk about things, but then it of was. Of course, tough. fida nyo lera li. No, Nenko watani. No, no, no. Iwa yup nenko watani sino. Did it, Jericho. Did it, nenko watani. No, no, no, no, no, no, no, no, No, no, no, cha majin. Nagjaya ba majin. Yange sa cha fimbi. Jaibo, <laughs> <laughs> just, just to um, mm-hmm. wrap, because there are certain things so siduge fogna them passional, which um might trigger or other things which I don't want actually. Mm-hmm. But just to say, sometimes when I say this, people that are close to me knows this. They know about what I'm talking like about. Like I was saying, I'm business. I'm axiom. parce que nga sëy amee business comme ni nga ko waxee woon da am pour fogoon jàng bi euh, pour pour concentrer sa sëy pour bàyyi pour yeneen problème yeeg yooyu noonu parce que ñun ñëpp xam nañ african setup bi nu mel sooy sëy waruloo jànga sooy sëy waruloo liggéey da nga war a toog si kër gi nekk housewife di tooga di yàkka ah di def yëf yëf ñifi waaw ok you're you're married you have kids and guy business it's really really hard okay, maybe if you're in a married government and you have everybody understood you, mm-hmm. it might be easy. But you're with, you know, someone Kohamne, maybe they don't understand, or maybe you pursuing whatsoever you're pursuing, it's like a threat to them or whatsoever. I don't understand what was going mm-hmm. on, but it's. You better then then don't want to say say na um business be like digital than say be. moo tax sax sëy bi loolu bokk na si tamit yu tax sax sa sëy bi demut waaye rëccu ko sëy bi tas na waaye deeyu ma at the end business baa ma amee dima sutura tax na ba taxawaalewu ma cagatu ma toskarewu ma leer na <laughs> laaj naa <laughs> ndax loolu loolu amut sëy Um, uh, jiitaloo woon business bi ak yooyu noon loolu bokk na si lu tax uh, bi dem sacrifice a jàng kañ desalatuloo ko dara wax dëgg at the end of the waa su ma jiitalee sëy bi tam business eh, bi si kaw business bi si kaw sëy bi may eh, la rëccuuma ko at the end of su dee loolu def parce que xam na nit ñi moom dañoo toog ñu lébé la la waa maa su dee loolu laa def Say bye, Chonchoy. Today, loolu laa because nit ñi dañoo toog di wax man maa amu time di explain. nit ñi oh no si seen a gom ko sa juboo ak sa kaani sa each and every decision I took with my life I don't regret sëy yu ma sëy yëpp regrettu ma ci. nga fi ñaar ba si. ah si ñett. ñaar rek ñaar rek <laughs> nga fi ñaar. <laughs> te yaa ngi compté lu tax sëy mun nga téye góor lan mooy problème bi munut laa téye. amul sëy mun ta téye mun ta téye sëy kon nañ ko ko putin that way. lan moy problème bi. li problème c'est si lan. lu tax góor mënul laa wit yow di kayna na di li nga nek ekkati sa maay bi tuti su ko defee ñu laajee wala dañ la ragal wala wala sey bi gaay dañ ci dé pam duga ci né xaaral ñu duga ci rek ki ki amna brighter future ki mu ngi dem mu ngi am business am xëy na war nañ faa mun a jëlee dara ñu ñëw amuñ li nga xamante ne moom moo tax ñu ñëw fa mayuloo leen loolu ñu baax out wala. waaw alors man naa ah, leen la xam si biir jamono si bi kenn du ma pamti pamte balaa ngaa jot si man dañoo sëy si farataa suba bi ma duggee boo réglé ñu dem boo réglé wut ma wucca la fa nu yëkkabu na xarit demaat am na solo nañ counting because adduna bi bàyyi fi counting <laughs> déedéet dama ko wax man ñu kontel ma ay jëkkër moo ma gënal ñu ma kontel ay ba ba nga gis di raad wan waaw loolu am na am na solo waaw bëgguma ñu kontel ma sëy nañ la kontel sëy waaw moo gën ñu laa kontel ay far kontel ay far nit ñi mënuñ ta am tey kii jël la ëllëg kële jël la ñu laa paasante comme man doo fi toog nga dégg ñu naan na bu dee booy si ñu koo fen dugg na si sëy bi mu génn ci bële farata sunna mooy tax nga jot si man buñ pare lu sëy munta am góor yi munuñ koo téye waaye lu tax sëy tamit munta téye góor yi toog sëy bi sëy munta téye góor de because du jël nonsense am na yu bari ñoo toog di muñ duma ko def xam nga lu dañ la tottile si sëy bi amul toj man kenn duma dañ la dóor si sëy bi man duma xaar abuse ah yaa understand ok maybe it's my first day kind of I was young, yeah. But right now, I'm not gonna take abuse. I'm not gonna take exploitation because i am not going to xam ne dañ laa gis kii de dafa capable kii su ma say, "Mom, ak moom dina yokkay lu bari si man nga say, ak moom mu bugg a use understand Let's say for example some gay business mu bugg use ñaar ñu jaar foofu yëpp use I'm not pour, saying for, that, for, but I'm just saying. nga ne ma li waaw fit, waaye fit Tambambalu soo la si ñu pay leer xaw nga Tambambalu si ko waxee si content bi di wax lu ñu dañuy I know So gisee nyo indi la fitay. I ne da nga nekk di tamambalu si si I know am na looy represent the society bi I know te you are doing wonders whether you know it or not that is why people should just uh, concentrate on the wonders that I'm doing and then let stop what I'm trying to get into my private life because at the end of the day say waxoon nga ko fi bu ñuy I am not <laughs> noonu. gis so if soo if people um, commencé ñu la xoolee oh, as a celebrity. yow sa private mu ngi si biti I know. nekk nii. si marché bi la. people dañoo dugg si sa private si nañ la wax dinañ la wax lii dinañ la wax lële. loolu amatuloo si control. I know I know understand nga yow yaay xam nag yooyu tontu. ak yooyu bàyyi ak yooyu lii non waaye fii fii dañuy leeral fii dañuy leeral. Exactly what I am parce que say coow li toppa na ko wax ji bari na waaw yaa ngi understand mm-hmm. commencé ko si sa force sëy bi yaa understand Yeah. gis nga issue bu si am ban issue issue bu involve Bob. Bob. bopp keeta I don't know what you're talking about. How oh, do you know, my dear? No, I don't know. <laughs> Have you ever seen me talking about that online or anything? Unless you don't no. want to talk about that. I don't know what you're talking about. Okay. boobu <laughs> nañ ko fogoon ah, bobu gisoon nañ ñu bari ñu la doon attaque saaga la wax la lu nekk yaa ngi noppi woon maa ngi noppi ba tey waaw yaa ngi noppi woon naaw ñu gis ne this time around say noppeetut say noppeetut si beneen wax ah, ah, waaw waxuma wax boobu noonu waxuma wax boobu ok a lot of people they might call say danga war a continuer noppi bi hey just because I was noppi doesn't mean that I am noppi anybody that knows me from a young age I am not the noppi type I learned to defend myself from a young age let me get this clear with Gambians today. Okay. Hold on, hold on, No. Let me get this <laughs> ah, okay. straight. I with... love this. <laughs> man nii laa bëgg a ci yow man nii laa bëgg a hello you man nii laa bëgg a all war nga koo jël jëlal lii luñ naan filmer leen lii sey dafa lu la neex la ko ala téléphone Sanyang génneel téléphone di def lu <laughs> lii so let me say yaa ñoo nappa nag Let me get. no no no man wherever I go I control no no but you don't control here this is my, I am this the is the problem this is my platform I'm always the boss <laughs> <laughs> <laughs> It's always the boss. So let me get this straight with Gambians, yeah? Sainabu is not the quiet type, okay? Sainabu <coughs> do ragal. Sainabu du tapet. Mm do somebody that is gonna be bullied. I don't, I don't take bullies. Do you understand? Mm -hmm. Especially if you're bullying me into something that is directly affecting me. Okay? If you're bullying me something directly affect i will come and drag you the things that people don't understand was all these years they were dragging me for something that i'm not even involved in okay about this but you involved i am not involved of course yes i am Say not i am not i will not take that okay don't take it well i'm giving you that i am not involved in that directly do you understand mm -hmm. okay my younger sister is involved. Yeah. What is your husband? And I was ex husband. Do you understand? My younger sister is involved and my ex-husband. Well, when it was happening, it was my husband. Exactly. Okay. Be more help. But then so, so, so, he is now an ex. Ex. Do yeah. you understand? And the reason why I say it does not affect me directly is day, suma day, suma raka day, suma ex-husband. Are you gonna judge us based on that? so that's what I mean that doesn't come to me directly but Gambian bi dañ everything centered it on man that is why they they they they so. nga caa yow lu tax sëy na bu munu koo it's not my case. It's my younger sister's case. The Jurumas my younger sister. But I'm you, are the elder sister. I am not the parent. Yeah, I am Ngidunda, Papa, I'm Ngidunda. Why mm-hmm. can people go to their, their, their yaayam papa wax ak man I'm just a sister okay the family ni tey any sister i am problème dama ko war a that's all I can do I cannot decide for them balaa ñu maa wax why did they ask her The mom. Balalna. because moom moo go through what she go through Yo, at the end of the day mm-hmm. at least war nga ko mun a war nga koo mun a wax ne ab do you know what when be wait war nga see mun a wax aaxa xam nga lan la yow ña mus nga am kaabu siw yow man déedéet mama sa famille musuñ ta am kaabu siw ban façon ngi kaa la ay kaa yan façon ngi kaa famille bu ne moo fi am kaa xaaral rek exemple rek laa bëgg a dama bëgg a jël benn exemple rek wan la ban façon ngi kaa oyuma waa ma rek comme na lii la o oh, affaire sëy la o oh, that's it no not affaire sëy not affaire sëy not affaire sëy somebody insulting family online ki nga xamante ne mu ngi def uh, li nga xamante ne mooy liggéeyam mm-hmm. uh, attaque nañ ko saaga ko ak yooyu noonu loolu tamit kan moo ko attaque lan ngeen def as family ñun because moom chose choose that path naxadi nañu balaa ngeen doon attack what did you try to do no ñun we don't attack so what did you do ñun ñun dañ jox waxaa mom pour mu cool down by affaire si ak yooyu noonu yaa ngi understand Why danguwut Or oh, nangu woon No, non moom na ok so ñan ñoo doon lifin nit ñi online ñoo mer di it's the same thing you see things when they get online you don't know what go behind doors okay xamuloo sacrifice yu nit ñi do you think as a businesswoman like me I started doing my business I don't need that attention I don't need that noise I tried everything I could do as a wife as a mother to make sure mm-hmm. the father of my child mm-hmm. business is not out there yeah my husband's business is not out there by trying to run family xale bu góor bi famille bi tey suñ toogee dinañ la wax ne ñun ndaw nañ ba soona ñun waslu nañ suñ ah moo taxit xoola tiituma ragaluma yéen yéen famille jànxa bi waslu ngeen seen ah daw nañ ba soona ñun say foog nga ne soo ñun daw nañ ba soona hey kees bi balaa muy génn laa wax mhm. ñun daw nañ ba soona liñ war a def def nañ ko hmm? liñ war a def def nañ ko ndaxte lan ñun dañ nekkaa ay géwél te sutura nañ xam dëgg la tray nañ pour sutura ko ñu ne nag loo sutura sutura nit bu la yàlla ko yàlla sutura wut mënuloo ci dara mm-hmm. at the end of the day li ma mun def naa ko li ma war a wasul suma axa wasul naa ci ya nit ñi nag gomatuñ yàlla ah, jar naa laajte man soo ma xoolee tey mm-hmm. soo ma xoolee tey ak yiñ ma jiiñ yi ñu wax ci man mm-hmm. waaye su dee nit ku ragal yàlla nga ku gom yàlla nga te nga am nga mhm. am tuuti imaan mhm. nga xam ni yàlla dee dogale mhm. tey war nga maa xool nga sëga sa buti nga xam ne digga digga ñu ne fecca kóllëre ku ko def ren ba déwén dara dalu la dañ la ko ji man Gambia ragal ma fiten suma kaw nam suma boppa suma tànka suma loxo ca kaw ak yi nga man puusuma balaas ak yi fi jaar yëpp say naka la ko dundee dara parce que lu doon lan am gom-gom parce que dama xam ne suma dëgga laa nekka te mënuma ci dellu gannaaw parce que dama xam ne ñuy wax dañoo bow bowi rek waaye right now ni ñu bari dañ dee wax ne sëy dafa depress moo tax muy def yi moo def ni ah, moom ah, mu ngi kuuloon ah, mu ngi on kuuluma woon I was just minding my business because of liñ ma nekka di liñ nekka di wax mm-hmm. I don't know what to say about it because number one the reason let me tell why I don't want to talk about that case. Okay, now case The reason is yeah. the case is in court. Yeah. If anybody want to know anything about the case, follow the court, please. Mm -hmm. And can bu ma disturb about that. yeah because man li nga xamante ne tooga ba mu ñor ba pare moom laay xëti xëtee I said it before I'm not gonna say it again nobody can make me say anything about that case until it's done Lolo. loolu am if it is done Zainabu comes out to talk when she chooses to talk. So by Helsa, I only turn to people that I want to turn to, even si TikTok. Yeah. I only turn to people that I want to turn to. Just to come and show people do my dof. Okay? Hamna dara, si dikabila boka. ku fi am benn kaat am naa am am ku fi am benn baat am naa fi. ku fi baat nit yi sonal Sainabou. sonaluñ ma seen bopp dañoo sonal because safuma man every day soo ma say, maa ngi belli di successful di def suma business di grow every day Hana ay wàcce xanaa man ku ma toppa dangaa soona parce que man yàlla bi ma defaree bi ma yàlla taalee yow yaa ngee nelaw macha allah so nañ toog nañ nañ ñu ne leen woykat bi parce que duma baax xamul demal nga toog waaw wala bu ma buggee xam ñëwal jàkkaarloo ma wax la ki ma doon fi ma bàyyee ko ak man may kan waaye foofu loo na Sainabou naaw mu ngi react too much react too much I am doing what want to do mm-hmm. I don't let people dictate my life Mm-hmm. Before, bima nopi ani say you naka nga nopi ninyi di wasi yo nga nopi man len duma len tontu because I don't want to because they are not saying anything that is directed to me. Tontu, choose pur defante. I am not choosing to defante. I am in what I want to tontu because now people are coming for me and my business. Why people are coming for you saying Because that? I'm not their client. Oh, because they see me as a threat. Because when you're trying to make it, when you're going, everybody see you as a threat. kon sey na bu ñi nga dee dama put people in their place. waaw comme ñi la dee attaque yëpp jotee wuñu ak seen bu dara um, dañ am grudge wala bokk leen far wala liiw leen wala wala not because of man. man du ma bokk a. mbojo mbojo du ma dee déedéet du ma share. you don't share man. Yes, I don't say before, but now I will not share. If I am with you, if you cheat on me, I will leave you. I will dump you. Let me tell you. do mm-hmm. mm-hmm. tota Say relation. Say bima fi gorbi. Gorbi musa say man. Wala bu musa meka man. Yo ya Gambia. Na nyo taka sino. Yo fase. mal ko fasé mala ba jox ko ndeyam mak ba mala la sa ndey ak sa bay mhm. kon lutax askan bi kon lutax tax ñu parce que xamuñ jànxa yi mënuñoo staan Sainab that's why because Sainab was too confident Sainab anga gambe so confident dafa opal Do you know how many people want to do what I'm doing right now? But complex. they cannot because complex. Because like I always say, yang am bena xalé bu goor bo xamné yang pretend. Di won koku non. Li motax Um, gives the mic be tuuti. li moo tax problème yi bari. because a lot of girls are here dañ dee pretend ok nga am góor boo xam ne danga ko bëgg a sax bëgg a mu la ngay pretend di wane jikko boo xamante ne nekkul si yow nekkul si te sëy nag du benn fan du ñaari fan de du ñetti mm-hmm. fan. soo ñëwee ba sëy nit ki ñu ne jikko cooka la boo dikkee moom rek mu ñëwaat so dangaa dikkaa nit ki nga sa sa jikko yi commencé di génn. naa ah, problème yi commencé. Mm-hmm. Do you get? Man, I want to be myself. Me, I'm people. Let me tell you, hang a lot. A lot of people don't know me. Mm-hmm. Man, dama jihal school say. Danga tela duga se say. Man, dama tela duga se say. Man, lul mata nyubari hamu ma won. Like Sainabu, a lot of people know me because of my business. They follow this club life, uh, this in life. Ah, man suma uh. pangaam ne Gaddafi ne kolan laan oh, ooyee suñ koñ ñin oo speaking ne fural dafa am si bunti kër Yo, demulo ay fural sa. Eh, eh, eh in the house, I say, it's the stadium, I mga em, sumapada pa stri, kwa stri, la ilaha illallah. one time, Bobo, I didn't have that fun. Mm-hmm. yeah, my dem school, muno ma am fot, suma gine, sa ma yoto ma gine. Legi kon lu ndaw na say dafa more day yide yi daf ko daan aba ak yoyu nonu. Ay yoyu ben amu ci. Wa ma tay hit na tamit dama don aba yere mo legi ma ñew di sol, duma aba duma ñaan, ma ñew di jënd yere bu ma saf. Aba yere. ku moom sa aada yére na génn si mu man nga aada man bëgg na génn si xam nga man Gambia lay waxal képp ku ma si nga ne seena bu man nga aaboon yére man nga aaboon ma man ab ma duma abalante yére duma abalante depuis bi ma nekk xale duma abalante yére su ma yaay soo gisee sa yére jàmbur sa néeg bi sax di ko deeloo wala mu gis yére bu ees boo xam ne xamee ko foofu noonu sax dina la laaj fuñ ko jële su dee moom la ko mën a delloo ko xaw may fi aaba. moo tax teel la jóge ñafe waaw. defal sa bopp. ba léegi rek mbokk yi yéen a ngi seetaan Gambian Talents Promotion Tambambalu show ànd seeg ah, Zainabou Mbye borom saas waxtaan bi am solo loolu mu neex ma lool mu nekk jigéen ji gëm boppam ah, xam naa ne ñi seetaan fi mu nekk nii kenn ku si nekk. mu ngee dee toog lii gars di wax mbaa xol yaa ngi fees mbaa fii xol yaa ngi fii fees <laughs> xol xool raxas leen yi na xool yi frigo Seynabou Mbaye ah. zéro stress la wax waaye Seynabou defante bi la Gambien ci bugga nga bàyyi ko lii nekkul suma wax nekkul suma ah, wax de waaw not mine I've said it defantew ma ay only amal classe yaa ngi am classe yaa ngi def sa business déedéet man soo ma fekkee ma futeeku taati neen si mbedd bi si dox dafa am man lu ma def mu am classe am cas su ma defante bi sax am na ñu bari dañ koo wax de waaye fan yii dañ ma ah sëy gëj naa laa dégga de ñooñu ñu naan feex real so at the mm. end of the li def def ko ngir yow la nga ko a def <laughs> Gambia fii soo leen toogee ngir nga duma def lii because of nit ña nit ñi gëmuñ dara Mhm. fii Gambien bi dafaa ñëw di la advice te fekk gëmut ko next minute nga gis muy taga keneen ku ko def definitely so let them come with something else come on man yàlla daf ma may xam nga yeneen saa da ngaa di am ay issue yàlla dimbale la nga mun a from the far then you see the reality of people man lu bari laa fi jaar jaar lu bari laa fi am jaar jaar am na yu bari yu ma dal yoo xam ne jigéen yoo am na jigéen yoo xam ne dañ ko moom am na ñu ma delloo loolu sëy ak yow la fi jota xew ni yëpp so doon man la duma ko dundal but nobody care to ask say how are you yo, how is your mental health why are people thinking I'm depressed exactly now? it's because they feel what I went through it's a trauma but nobody care to ask say naka nga mën a naka nga naka nga dundee góor yooyu naka nga naka nga dundee li sëy na nobody cared and now you see Senabo is happy. Oh, she's depressed. You are mad. My depression, nobody saw it. When I was could, depressed. Could depress. Ah, when I was depressed. Okay. I did my depression. Let me tell Why you. depression? Let me, wait. Depression now. Okay. Be my depressed. Eh? I don't talk to people. I went through therapy. I did what I did. And I'm done. Time will learn la business parce que jamono boobu nekk na jamono bi nga xamante ne sëy na in fact si laa gën a tàgga boobu da I did not da oh. nga concentrate on sa business bi jox sa time you know the reason why I'm giving you this depressed because Gambians you they want to hear Sainabu saying dama depressed dama depressed I am not depressed okay there was a time there mm-hmm. are some shocking day am um, or some things you go through which is very true you have to go through some process mm-hmm. of re reprocessing your mind pour nga mun a do you understand Yeah, definitely. there was no time i was off mm-hmm. in fact i buried myself in work i said i went through therapy do you know what my therapy was mm-hmm. work i buried myself small baby. i focused more well it's because of that problem let me make it clear to everybody that everybody thought make I was clear. that everybody thought I was depressed. Mm -hmm. That's when I become a millionaire. Like seriously, like yes. a millionaire. Yeah? I did it. How, okay, the youngest millionaire in town. But no, I'm not saying that. But I'm just <laughs> saying how some things can actually help you. Yeah. And that's why you know yala sweet defar. Dafa melni kuy yaxa. Man bi issue yoyu xamé ci la gëna am jom. li ma doon liggéey benn ma ko liggéey five times ma a am jox si sa business dara daf ma yooka ah waaye nag Gambien si nag nañ waxante dëgga mhm. man depuis bu ma problème yi amee nag si laa gën a taaka si laa gën a jëm kanam ah ma nekkoon si benn bitik ubbi waat ubbi waat ubbi waata te boobu da léegi ma am beneen branche boobu dang si jógee hmm? boobu dang si jógee sëy boobu parce que man xaw ma caaxaan xaw ma fayantu góor soo ñëwee dañoo sëy su réglé ñu dem if not I move because xale bu ndaw laa mm-hmm. yaa ngi understand Fi yaa lay jógee ne waaw bul dee dugal si sëy bi ko dañ naa fayantu fooguloo woon déglu ma because góor na dangaa jógee si góor bi dugal si góor bële tey ñaata xale jigéen ñoo fi nekk sëyuñ ñu ngi fi xale góor yi di leen pamte pamte defuñ tarante seen kaw waaye fooguloo woon ne tamit si li nga jaar yëpp si li nga jógee foogloo woon ne dafa teeloon pour nga duggaat ci beneen sëy teeloon sëy bi laasut la teel léegi loo leen bëggoon ma nekk di njaalo a ah, loolu moo teel déedéet mm. déedéet loolu la di because suma sëyit man duma banta duma robot duma weñ nit laa am naa ñaari doom damaa yëg suma boppa waaw dama yëg suma boppa mm-hmm. te foog ma sëy te sëy boobu suma sëy dafa war a nekk si yoon dafa fekk koo xam ne daf ma takk farataa sunna ñu nekk ci mm-hmm. leer na leer na du ma nekk si foyanto man kenn du ma pamte pamte amu fen xanaa mu neex ma. ganaa <laughs> lii mbokk yi tey am nañ gan tey Tambambalu am na gan bu mag a man lii laa bëgga man dama bëgga ma koy jox nga ma koy delloo noonu la ah, parce que fii lu nekk dañ koy waxtaanee ku nekk am na jaar-jaar ah, te jaar-jaar mooy tax nga egga fi nga egga soo amutoon jaar-jaar tey doo fi toog parce que ku defu dara dara du la ci fekk waaye nag eh, di la gën a encourage rek comme ni ma koy waxee parce que no mata wat eh, man dama dee bëgg a jigéen bu nga xam ne dafa try jigéen bu nga xamante ne dafa stan dafa taxaw strong gom boppam gom boppam lu munti ñëw Gambians don't like that. nit yi nag Gambians see ñu encourage la duñ la la <laughs> discourage. let me tell you this the same Gambians mm-hmm. that will be shaming you. Mm-hmm. will go to another person page comment and it's not a Gambian. doing exactly what you're doing You could please. yeah bébé oh congrats. waaw because nit dina seena bu dafa opal. opal dina bu moo def nii seena bu lii seena bu feccaami. seena bu yu moo def nii kii lu moo def nii. kii nit yi xamee nit yi xamee wuñ ko woon lii. waaw léegi ah, gis nit bu

ku ñëw suma wax ma Robes dama lay put in your place dama lay tontu tontu la. luy problème bi yow ak gaay seen bu man duma li ko luy problème bi yow ak gaay ñu la attaque TikTok bi parce que <laughs> da leen de tontu post I'm gonna start saying ma tey ma ma because that's what I mean I'm tey like ma ko okay because I am not doing it for anybody I am not doing it for anybody. I do it for myself. You cannot come to my page and try and throw shade at me. I'm not going to let you go like that. Do you understand? And mind you, I don't answer to everybody. I answer to the ones that I want to answer. It gives me pleasure and joy that I'm standing up for myself. How Because danga de tan ñi nga tontu. Wow si mood la nag dafa dépend ok yenn saa yi dafa dépend mood bu ma nekk su ma si mood tontu la dama lay tontu su ma si mood du ma la faale sax I can literally do both ignore but I choose not to ignore if I wanted to ignore you know what I'm gonna do. Mm-hmm. turn off my comment section or block I don't block nobody I don't turn off comment sections. yaa ngi how many follows TikTok léegi. How ma sax. parce que xam nga Gambia. su nit commencé di def dara euh, commencé am benn problème Facebook euh, am ko ko saaga fili wala am ko moo tontu wante fili ñëw di daw si di ñëw di like di follow di xool nga def mhm. euh, te fi mu nekk nii ñëpp dëkk bi yooyu cock of town <laughs> maa ngi ko ñëw <laughs> ni ma la ko waxee woon comme ni ma la ko waxee dogal danga xew ah fii ku fi xew ñu ne da nga uppal xamul boo paam da nga lii nañ bàyyi rek nangu ndogal. waaye jàmm na foog da nga war a leeloo tuuti. leelu ma loo man ma kenn maa si suma business man doo dem fen nga gis ma. Mhm. tey soo ma fi oyitoon di nga dox a dox doo ma gis yow. dëgg mos naa dox si dëkk bi gis ma mos naa dem ay programme du ma gis. déedéet su dul programme boo xam ne dama fa am cër. Mhm. leer na la oy doo fa dem. bariwu ma capar capar. Mhm. amu fen déedéet am on my daily activities work. go to the gym for my health and fitness, go home with my family. Sundays, I go out right with my family. That's it. Naka nga as a single mother yow ak nyari ñaari doom rek ah, naka ngeen nekk di dundee. Ah. sant ne yala def yala jox ma xol boo xamante ne mut naa leen ndey ak baay moo may gën a ñefe nag ñoom ñaar ñooñu tax na su ma dee def dara benn dama ko dee def fukka waaw parce que bëgguma dara lu leen niiti mm-hmm. tey su doon suma sago la dañoo gëstu gis ndey baay dégg waaye nan nit ñi nangu leen xam ne lépp lu yàlla bind sa fii is destined to be is mm-hmm. yàlla dafa destined pour man ma nekk single mother at this time mm-hmm. waaye nan nit ñi gëm tamit gëm yàlla xam ne suma papi doomi fu mu nekk noonu man du man yàlla la su doon suma sago benn jigéen yow xam nga dikka bi dafa miiti mm-hmm. kenn ñaanul yàlla nga nekk amee su responsabilité ay xale school fees yow lunch yow accommodation yow feeding yow kenn bëggul loolu kenn ñaanu ko yàlla waaye natu la boo dama ko nangu. ba mhm. pare ñuy wax nañ wax parce que xamuñ buñ xamuñ duñ wax te nit xam rek nga wax ak xale yi xam nañ about of their father. ah non but you have to tell them. you don't have to tell me that. you don't tell me what to tell my kids. at the end of the day, how I raise my kids, how I go about with my kids, nobody tells me that. But I am training fair, them. Fair enough. Pour no. harm. no, my kids are babies. Okay. They don't understand nothing. Thank you. And si dëkk bi nañ nekk. Mm-hmm. Fii lu nekk records. Mm-hmm. What of suñ génnee si mbeera bi nit wax leen ko nag. Na leen Man the way I raise my kids, they are not ignorant. They are not ignorant. They are not. Tango,te whatsoever case it is, it's in court. And you see court, they have records. Yeah. They saw Fibuge Ham's case in 1965, them are court, Nijola record. I'm going to educate my kids. They're going to know exactly what happened tomorrow. Whatever part they choose, alhamdulillah. Naka buma neke di ligayal sama bopa. Man ken duma ilif. Dom duma ilif. Mbeda duma ilif. Hana wajur. te dafa am fu moo em parce que dama nekk waajur ma nit dëgg leer na <laughs> boobu leer na askan bi ah, ah, mbokk yi ba léegi yéen a ngi seetaan Gambian Talents Promotion rek si seen Tamba Mbalo. ana loolu la teg na nit ñi yow sa doomi suñ magee loo di wax. non xam nga waaye seen bu nañ waxante dëgg. déedéet yii su yii su xewee yii su xewee sa doomi su magee loo leen di wax. yii su xewee li laa leen di wax. waaw because man su ma leen fenalee mbedd bi. dinañ leen xam nga léegi things yi nu mu dee demee mooy. yow boo leen ko waxee so you think suma doom yi dinaa leen wax déedéet not not not not séentuuma loolu exactly So séentuuma loolu pour yow nga wax that is really my problem but people, yi dinañ laajte lan lan naka don't have to know everything exactly let them just assume ci ñëpp xamee fi nga dem doo yegga waaw loolu dëgg leer na leer na waaw ba leen bàyyi leen ma nag yeneen waaw léegi léegi nañ nañ concentré si sa business bi parce que lii tamit am na solo Exactly. And I'm starting to so, feel like, oh my God, Gayora actually bring me here to clear out things. No, no, no, no, no. No, no, no because no, I thought actually I'm here because of my business. And of I am course, doing yes. very well in this country and exactly, I am recognized exactly. for that. Not because of issues that I have, which is personally, which maybe can even that trigger is part something. of you. No, it's not. is part of you. It's Lolo is the past, but it's still part of you. But then that's not the reason why you call me here. Exactly. Problem nobody called me talk to me. Exactly. Some people did. So now let's talk about business. Okay, let's talk about business. <laughs> anyway, comme wax nañ pare. I'm not feeling my saga to business. <laughs> waaye man affaire de réew da normal man lii lii du dara sama man lii laa bëgg a xale bi ni muy salaxoo ni muy waxe man lii mun naa ko man façon gan fi am exactly lii du dara lii du dara yeah if you are bold enough to come exactly exactly exactly I, and have, no problem exactly. that yeah and I like that you're, okay. you're, uh, You do a business career. exactly oh my God am not solo I'm not. that is the part you love to hear most. that's what I want to hear. how exactly. to make money how to do that how to get there how to dem kanam this is what I want to hear. Not things that I've already battled and I am trying to move to another phase. But it's still part of your future. Like, it's not so, part so, of my future. It's pa- sorry, it's still part of your you. No, it's my past. Why can people past. let people's past be past? How the hell? My your past cannot define you. But sometimes if at all, your past you, can affect your future. It cannot. Not my past cannot affect my future in any how. I claim it and I own it. Because right now, I am trying to fix my future. Why Ah, doo dee gis ne léegoo léegi nit daf dee dem ba nga xamante ne comme mu ngi nekk benn ku success si society bi mm-hmm. wala mu ngi ut benn position ide président wala a minister den mm-hmm. nit indi paasam like what okay let's say for example tey ma taxawee pour nekk président what do you think is in my past that will haunt me nit yi dinañ commencé di génne kii nga xamante ne moo fi yóbbu woon jëkkëram comme nuñ ko waxee comme dañoo wax for example dinañ la yow kii nga xam ne moo fi tëjoon jëkkëram waaw noonu lañ ko dee waxee waaw noonu lañ ko dee waxee kii nga xam ne moo fi tëjoon jëkkëram waaw exactly comme ni ko nit di la waxee laa laa wax how many people that are president that they were in prison themselves. Exactly. But why the same people, I would direct them to, go to the court and see whether man ma take the man ma ame chabe mail to. Ame uloko. Teju maken. Ame uloko waaye loolu nag tëjuloo kenn loolu loolu loolu nangul at the end of the day wax bu nekk am na tontu. exactly loolu nangul naa la ko so I can stand to be a president. exactly whosoever have anything to say to me I have a reply for you. exactly Yeah. moo tax ma laa wax ne sometimes ñeneen ñi dañ dee indi sa pass bi si sa future the past can only hurt you if at all that future yaa xana ko. exactly it cannot because it doesn't make sense. loolu tam dafa fekk nga nangu ko if people have nothing to hold against you but your past then you have no problem. Hanga nit ñi lan na ñoom right now. That's what they can use against you. But as far as lulu sa la you're somebody else. That cannot affect you xanaa nga nangu ko. dëgg tey soo fi nekkoon di jaay sa nga bàyyi ko tuub ne duma jaayati suma bopp tey nga bugg a fi def dara ngir doomi dëkk bi waaye nit yi dañ la ko indil de dinañ la ko indil dañ la koy wax de ñu ngi la ne yow nga xam ne waaye am nga fit wala amal fit bu taxaw ni nga ne ma ne loolu suma paas la suma jaar la suma paas la tey am better than that exactly si kanam lay xool like na that statement tey lawyer dañoo nekk si code bi di di di di defend modra xam nañ ne moo rey kii waaye dañ laa defend te xam nga ñaata lawyer ñoo fi free modras because of good defending mm-hmm. always defend yourself defend yourself at the end of the day boobu loolu ko jël loolu dinaa ko jël def na ñetta loolu dëgg la mu ko toogee waxu ko kenn loolu dëgg la so man nit mënumaa jooj mindeef mënumaa wax dara mu saf ma parce que li nga maa wax noonu am na lu ko raw li nga def te waxuloo waaye xam nga di moo success yaa ngee dem the more young active things, yeah. start. And I already understand that. Exactly. So that's why it will not help me in any way. Exactly. What of money still your young concentrate to the future. Exactly. But people will still wanna bring your That past. is them because they Just want to, to stay you. in the past. Because nyong sumaga now. So obviously they cannot see anything in front of me. Kuneka sa gannaaw lu sa kanam. Waaye sa kanam ñooy gis loolu sa kanam the sakanam lu neka sakanam let's talk about your say now i know you don't ah we will get there okay people that are behind you are the one that will about your past ñoo xamante ne you are no more their level because they behind you danga leen romba moo tax xamuñ dara lu sa passé waaye su dee yéen a mm-hmm. wala ñoo la raw duñ xam lu nekk sa passé parce que duñ ko gis waaye faguloo booy dem si kanam tamit ku la sànni xeer nga bugg a gestu sànni ko man gëstuma saani kenn man su ma doon gëstu saani ni ñi xeer Gambia dem eh, yëpp jeex na de Gambia yëpp jeex na Gambia yëpp jeex na man sax si laa bokk ak Genjoor <laughs> su dee bokk nga si let me know I don't know <laughs> no, no, no. most of the people that talk about me I don't know them and they don't know me No. Most of the people, they don't know me. They just talk because what the last time I came out on a, a, video, I said a lot of people that hate me, they have wireless or Bluetooth hate. Tay, lot of people sa status bi ngeen doon wax ñooñu soo leen laajoon. yow da nga lan la Seyda. dégg naa lii la def. wala dafa am suma wala yëf yi opal yum dee def si kii waaw yooyu rek non daf Gambia France loolu mooy Gambia nit yi miin nañ ko. Ah, ah. people leave me alone. Hey, me, I'm enjoying my life. I'm trying to mind my business. Bye, ma. See, come, Galala. min na egal interview dem Dubai <laughs> <laughs> am air naan glace waaye ah? bi nga jóge bi nga jóge bi nga bi nga bi nga jógee yooni Dubai maa commencé wuñ di la di la dugal sa xale Dubai yi ci taay coo porte porte bi waaw bëggoon naa def vidéo <laughs> mësta fot xamoon nañ ko rek yi nga laa dëkk de foguloon loolu man dama xamul loolu man gisoo damay ñëw man naan porte porte xaw ma sax I don't know loolu yi ñoo wax noonu ak Gambia si bokku ci sax yeah those are things yooyu yàgg na yàgg na yooyu yeah anga Gambia dara su jógee rek ñëpp ñëpp jógandoor jëlandoor ko waaye fooguloo ne tax na tax na ñu bari fi mu nekk nii ku jóg Dubai sax mu doon problème Dubai nga dem ah dem bi su su bare nit yi seen xel ci <laughs> ah cam maa xool yaa ngi feek ma xool yi na ñëw weekend ah sëy nag léegi millionnaire nga macha allah ah Dubaay kay Dubaay kay ku ko jël dem weekend ak yooyu noonu dem weekend dem Dubaay di dem weekend di dem ak a ñëw. waaw dundaloo fekkee man daal loolu loolu loolu léegi. waaw ku mun jël snap bi rafet di gis sa bopp. di ko sànni si jaww ji ne naan comment leen wax leen <laughs> def loolu leen sax coow coow daf la topp nag <laughs> dañu xew waaw gis na ñuy coow topp mooy sa gàllaaj déggoo ma ne dañ ma bëgg a su dee dañ bëgg a ma dellu gannaaw dañ mm-hmm. bàyyi nañ waxtaane business ah, yow coow bi mooy sa gàllaaj <laughs> non soonu ma sax waaye xam naa ne dama bëgguma nga ñëw fi te waxuloo si sa carrière ndaxte loolu am na solo because wow. that's what I thought at the end of the yeah, day. And we talk about it. Yeah, when but then started, you, you took it on my personal life. Why? Okay. No, but sila boka. Affair bi fi li tamba mbalo. Why now? Gis nga ñeneen <laughs> xëy na moo tax dama la bëggoon a wax pour nga seetaan ñaar au tri épisodes yi nga xamante def nañ ko ñeneen yu bari su leen waree invite si Tambambalu dañ ko dañ ko dee xalaataat dañ ko dee xalaataat dem fi nit ñuy def interview mu ne naa waaye dañ waxtaan ba jubóo after all dañ waxtaan ba jubóo. no I know sometimes it's very um, nga clear the air. it's it's not easy mm-hmm. for your business to be out there for your private life to be out there Yeah. na dafa am ñum the first one in the dream. They take you. tax ñu bari dañ ko dee jaaxal daf leen dee because there are certain people they cannot take that You mel noonu su génnee dañ dee tip. ñeneen ni they go through trauma for the rest of their life, <laughs> depression. Understand, guys. That's why a lot of people cannot understand why Zainabu, why is Zainabu like that? She has to be depressed. Come on. so depressed, eh, you have to be in one place. That's for depressed. You understand? Zainabu, so depression, do make that all make sense. You Definitely. see, Zainabu is doing her business every yeah. day. she's making because money. Because you depressed, you get faju. You get faju. Yeah. And then they cannot hang up. Can munul nagis kneeling or whatsoever. Come on. Man, gis nga koy dépresse doo mën a sax di sangu saabu bu ko wala di diw man damay defar samay defar sama dem spa ñu ma massage dama defar I am not depressed. di jël right now at this point of my life mm-hmm. I am living the soft life <laughs> oh I am <laughs> living the soft life mm-hmm. Okay. Um, so <laughs> I am not different. Okay. Let me look at the camera. The Gambia. Senabu, no. Villages, Niti Hamdan, you are not different. Different. Niti. Well, Why is people forcing me to be different? Because nun la gis ngay doxale la motax nit di ko comme ni nga doxal ko xamne lo xamne comme ni nga nekk di def tontu lo won wax lo won dara legi waaw i know understand na dum ci delu wat comme nit yi lool that part of you lañ ñu tegal have you ever seen me coming and talking about this case. No. No. Like my before, that people used to come and talk to me anything about my personal being or my business. They don't do that. Mm -hmm. People were only attacking me based on that case. Yeah. And I don't reply to people because I don't want to say anything about Exactly. Bobo don't reply. Legging I reply. Because this is directly to me. Okay. Okay. I have every right to defend myself. Lale is Casey Jambur. Wow. London, when when we had case boobu. you don't want to hear case bi mu ngi on court. you don't want to hear that now you already said what you wanna say li nga tonto tonto tontu tontu nga ko. wax nga ko léegi de bëgguma ñu delloowaat ñu ñu ñu waagu dem delloo kase bi. dafa war a leer parce que ko xam nga lii moom yaa ko yaa ko sumbi yaa ko naan. non ba tey mun naa koo naan moo tax ma ne ma bëggoon yëpp leer. Ah, te nit yi te definitely I respect that part when you say ne case bi mu ngi court te foog na ne ñu bari um, they don't understand ne court su nekkee naka la case su nekkee si court bi you don't have any right to talk about that case until the case is finished nañ bàyyi law bi mu handle ko uh, so I respect that part loolu moo tax ma ne nañ bàyyi that part. so léegi nañu ñu waay bàyyi Sainabou dafa noppi woon that's the reason why I noppi because I cannot talk on that. now yow nekkuloo si. now this one is my business. léegi waaw exactly boobu boobu nekkut léegi affaire yi case bële bii is a new Sainabou bu nga xamante ne dafay. ñëw it's not a new Sainabou it's the always Sainabou. okay me I'm always like this. I'm always like this. Nini waroon nañoo bàyyi xel time boobu noonu even though case bi it's on and all that the way I market the way I come and talk about my product dañ waroon a the key kii tap it. dëgg uh, Key the fact how you talk about her product people that know me since I started my business I am the sole marketer of, my business of your business. I come and talk about my products talk about it boldly. Wow. people should have known ne man I had that boldness in me. so yeah Niti yi gis ne sëy dafa ñëw Ah, ba sami ak yooyu su paree yooyu jeexal na si waaye léegi sëy dafaa ñëw si TikTok bi def yeneen ak yeneen because yaa ngi grow big and bigger I'm because I grow to be something else. sey ku boot buggi xaj boobu la. ah léegi maa ngi nangu boobu bi nag man tam may bowante ak ñoom. su <laughs> ma bañ a bowante <laughs> bul <laughs> bowante waaw waaye bul bowante yow da nga am ah, kalaas. su ma la bowee nag ma parce que dama la ko def ak. waaw duma soo bul bowante bul bowante damay bow dama lay la bow ba nga dellu fu ma jóge. kon mu ne dina ko attaque dina ah, dina dina attaque ba pare li ma dee jaaxal mooy people they don't come out with their chest people hide behind um fake accounts it's very sad it's just moo laa wax ne yow su ma doon yow ñii jaruñoo tontu damay bow parce que soo ko waxee parce que ñi nga xamante ne ñi nga xamante ne dañoo créer ay fake account di la suuf bi nga wax su ma la tonte di nga xam ne yow laay tontu parce que wax boobu laay tontu wax bi si ewo nga waxee ko si waaye am na ñuñ fi gis ñooñu génn nañ ñu ñoom tam ñu attack back. Ah, wax na ñoom si tiktok bi ñoom génn nañ wane nañ seen bopp ah anam continue fu mbir yi toolu anam yow laaj laaj yéen ñeneen nekk di toppa di xool laaj laaj naa la fan la falla falla falla muje. mujjee ah, anyway déggaan nga kenn eh, waaw mu Exactly. Um, loolu say is part of it anyway I know. yi la boka. I know understand nga léegi nañ waxtaanee c'est ça business bi. exactly tey nañ waxtaanee business bi. li nga waroon a commencé. waaw non moom laa commencé non xam nga lii dafa ñëw rek jël ma xam nga lii dafa dafa ya, dafa yaatu. and mm, the thing was getting interesting and interested. loolu moo tax ñu rey si time nii but mënut a ñàkk. understand nga parce que su ma la indee ba fii sax laajuma la lii dina am ñi nga xamante ne ngay njooro tey joxloo eh, soo bi justice. understand nga dinañ ma wax. moo ma laa jox ba doy. exactly ba nga naan way way nañ dem fële. waaw léegi nañ dem fële léegi dama bëgg ñu ñu talk about your business. ñoo jaayloo maaj bi dama bëgg a ñu talk about your achievement parce que people need to know yaa grow big yaa try yaa expand create nga some employment ndaxte loolu bokk na ci yi nga xamante ne dafa yóbbu réew because am nga ñaar ba ñetti bitik. Yang fa tek ay xalé yi nga xamantene ñu la jaayal ñu la fa nekkal wër bu nga fay leen lool at least ya nga yok ci askan bi ndaxte definitely ndaw yi nit nañ ki nga xamantene at least not government cannot do everything people are the government together we can do it so suñ amé ñu nga xamantene dañoo create ay job opportunities di create ay employment lool dafa tax dëkk bi di dem te yo ya nga bok ci loolu am nga commencé to eh, di ñaw hair dressing ak uh, makeup ak yeneen ak yeneen uh, ba tey fi nga toll mun nga ñëw uh, yóbbu turu di joni su ko defee ak ba tey sëy fan la toll nii ak fan la ñuy séntu sëy Well, like I said, comes the beginning. Mm -hmm. How I started, really small mm -hmm. with just a capital of two Fen. Mm-hmm. Okay. Mm -hmm. Nobody didn't When I talk to them, they're like, say, no, yo, you are not here. I'm like, why? Why do you think that I was not here? I was here when I started my business. I started my business and I grew it here, and nobody support me. Can do wane seen bu ikkati naa xaalis bi The jox business mm-hmm. I started with my own capital and believe léegi santa yàlla that's how I am going. Mm-hmm. SACS it's an abbreviation of sustainable arts and creative styles. Because I'm, I'm all about beauty, I'm all about style, I'm all about arts. Because when it comes to creativity, man, like, ah, I'm a being of my own. I'm a whole creation. macha na yàlla dafa ma di xool naa non man yàlla bi ma doon tagat ay te yala bari elema. waaw No yala mën a yàlla bari élément ku nekk ak la bindee yàlla du nit du nit du ji de Yala bari élément te ku nekk ak say ju ko bopp la I mm-hmm. know the way I am built, I I'm very strong. I mm-hmm. mean, from a very young age, I knew a lot of people cannot stand me because I intimidate a lot of people. Mm -hmm. I am very bold, and from the society we are from, as a woman, you should not be too bold. If you're too bold, then go up. Même soo nekkee xale di maksa, sax sa yaay daf la if you're too bold jigéen dangaa dal jigéen dangaa te. you know you grow up suma maam daf wah daan ni ma la gisee do gudafan. gudda hmm. suma maam daf word because kom kom ni nga wah rek when you're too bold nga unfit fit nga lini. nii ni ma say ni, say ni ñime bii You're still alive. I'm and then you make an impact in the society. Mm -hmm. People have to stand out and talk. People have to be able to defend themselves. People have to be able to stand up for themselves. Mm -hmm. And I always teach my kids to be able to stand up for themselves. Duma de don't do that you're killing the the child's self esteem if you do that they will grow up everyone will be able to mess with them because noonu nga nit su la waxee waruloo tontu you become a punching bag to society bi mm-hmm. a lot of people are like that today in the society and they want to unlearn that they want to change that but they cannot because loolu nañ yaroo loolu mm-hmm. nañ yaroo so soon gisee keneen mu ko def daf leen di and that is the right way mm-hmm. you have to stand up for yourself because they, dañ nekk si generation boo xamante ne nit ñi gëmuñ ñu bëri dañoo ñëw di la waxal fekka li ñoo wax gëmuñ ko mm-hmm. ok yaa nga gis preachers ni yow di la preachal sa fekka luñ laa preachal noonu luñ ci dee ñoom luñ dee practice luñ dee preach you understand mm-hmm. fii ku nekk trial nga dem wit yàlla mun la jox dara mm-hmm. mooy instinct lu rëy la am doole la loo xamante sa online marketing bi num dee demee na gis nañ ne yow yaa dee maketal sa boppa nga génna am nga ay connection dafa am ñu si jàppa ba pare I think you doing advert for some people Yeah, sure. loolu naka la demee soo ñu si doon wax tuuti rek I do my own marketing like mostly my marketing is solely done by me <laughs> but the guy gets you bad because I will start working with some people because I am into a lot of things. I cannot do all by myself. <laughs> because the committee, you you're handling platforms, you're doing this. Other people that I'm marketing for, I do. Man, so I do. Sangan yung ganun market na wala market Yeah. You fail. Of course. What so bottom neck is a competitor, sir? No, I don't mind. Put man, I don't have I don't have competitors because you already have your clientele. You already have people that are there I have people that are using my product since when I started Build League. They cannot leave. I have that clientele already. Ah, dama day advertise al jaw ya man day ci ebo nga man sabos boss la wolu. Xam mo de indi lolo. Mo gum sa bop ak gom yalla. Ñu bari mm-hmm. dañ fa ne gom yalla julli rek. Gom sa bop gom yalla mm-hmm. That is the that is my fekk ak nga level Like nothing shakes you. Nothing shakes you. I don't mind. Okay, because I don't see anybody as a competitor. Because if you are busy competing people, you will not make it. Don't even look at what people are doing. Just do you. Man, I do me. I think that's why my niche like keep on going because I just do me. Whatever comes to my mind, that's what I do. I don't try to do what other people do because the thing is, if you're trying to look at what people do, oo oh, yaa ngi copy lu keneen li def ban bu mhm. def a ban nga si boole parce eh, que dañ la xamee woon si make up dressing ak ñaw bi léegi léegi ñu gis ne yokka nga si defar diw di yokka waaye mhm. like I told you the aim mhm. eh, people that went to high school with me know the ones that were was there if you have my books It's there. I, I said, man, I'm going to be about fashion, about beauty. So that's where the abbreviation comes. The sustainable. Mm-hmm. it has to be there, the S. And then you have the A, which says that sustainable arts and creative styles. Because I know I will only So the creativity, it's with the designs. Yeah, you understand. And yeah, the, the design al sa bopa. Yeah. Waron nga masa indiwale. Really nice na. <laughs> okay. <laughs> Mm-hmm. <laughs> Okay. So understand Mm -hmm. Yeah. So I do that. Mm -hmm. Yeah. So um, I'm all about that. affaire saabu bi tamit ak siro yi nga dee defar ak yooyu noonu yëpp dafa am foo ko jàngee wala yaa toog rek nga yal ko sa bopp nga def research wala I was someone that was very careful with my skin mhm. uh, duma dee trust because I was a very inquisitive child maybe say for my day. So I was so it was very difficult for me to find do Wima do? because most of the time when I check out the ingredients, it's has for my skin, it's harmful. So what I did was I started researching about formulation. So I started formulating my own creams at a very young age. Fake almonds. I had to want to business to be honest. Okay. I was just from Why now? Why now? Nga talk rek dugal ko ci mbiri. because uh, gis nañ ne léegi Gambia everybody is selling diw everybody mu ngi engage ci mbiri diw yeeg yooyu noonu mbiri saabu yi mbiri sirom yi every Tom and Dick and Harry kenn ku nekk mu ngi involve si mbiri diw yi am na ñu wax ne ñii seen diw yi baaxuñ kii diwam bi baaxut ñii fi mu nekk nii Gambia uh, kenn ku si nekk rek bugga naa jaay diw bugga naa defar sirom bugga naa lii yow si ban catégorie suñ laay xool ci ban catégorie ci ñooñu lañ laa dugal ci ñi nga xamante ne dañuy defar diw man xam ne bokk nañ si ñi njëkk a commencé. soo ñu si des dañ toppa kon ñooñu maanaam yéen lañ toppandoor. am na saytu ne anybody toppandoor nii mm-hmm. non dañuy wax rek. parce que yéen bokk ngeen si ñi ko njëkk a star. waaye xam nga sooy def bokk nañ si ñu ko njëkk a am na ñu si jiitu. Mm-hmm. leer. Mm-hmm. ok. léegi mbiri business bi is open market bi is open ku nekk defal li nga mun sa wërsëg dina la fekka rek añ seen tànka parce que fi mu nekk nii ah, sëy bari jël affaire yi diw bi ñu bare ngay jaay diw ñu bare ngay jaay sirom ku nekka sa wërsëg mhm. marché bi bari na jaaykat waaye ku ne sa wërsëg dëgg mhm. du ñaaka te te soo mu ko def barkeen ci moo tax ñëpp di mhm. ko def su dee danga ko dee def doo ci am dara duñ ko def soo nañ def ku def mun ah su ñëwee na ba latta kenn li fete su paree su customer yëpp su nekkee ñoom nekka nañ jaaykate duñ su paree ñu ñëpp ku nekk dafa sa diw diw Paske foofu nekk nii. nekk fu nekk I know I'm creative. Excellent. I'm a very creative person today mun naa jóg come up with a business idea I'm there. Mm-hmm. It's very easy when it comes to business. Woof, ah me I'll be doing business for a very long time ha léegi <laughs> yaa ngi ci sa yaa ngi ci sa ñetteeli sob <laughs> yaa am ñaar ñetta yaa ngi am attention no say hala nitile need to know your achievement but people are not interested yeah, in my of people course. are busy dragging me online. soo gisee ñu laa toppa ni yëpp xam nañ ne yaa ngi jëm si kanam xam nañ ne you are making wonder but I know can I tell you one secret I know that already ku nga xamante ne yënguwul si dara I know demul fenn kenn duy wax affaire am de kuy dem si kanam rek la ñuy wax affaire am am na ñu nga xam ne kenn xamut leen people like me nobody know me understand exactly but am na ñu xam ne kenn xamut leen waaye tey soo gisee nit yi di toppa di wax si yow di la attaque fele ne le yaa ngi def wonders to be honest I look at myself every day parce the mirror. let me tell you whenever someone insults me online mm-hmm gis nga si suma closet bi fu ma dee defee TikTok videos I have a very big mirror. Mm-hmm. that daf ma dee jël fully. Mm-hmm. I look at the mirror and say, girl, you're on the right track. da nga dee kontaan si sa boppa. oh yes sooy ut nit ko obsessive boppam. Mm-hmm. <laughs> me, I'll take my video. I'll be taking videos. Ah, I'll be admiring this beauty. <laughs> no, I will look at myself on the way. I'm like, ah, see fine girl. <laughs> No. ba pare léegi léegi dama dee gis nga aji sa bopp man ak suma ñaawaay bi waaw waaw nit ñi wax di ak loolu dama leen di waaw waaye maa ngi defar suma I know that I know that to be honest self confident of course at the end of the day ah tey su ma nit it ne da nga ñaaw may am oh you're very beautiful. I, I like love you. you. Not <laughs> like people love me. The way people hate me. Me is two things. It's either you hate or you love. love. Don't wanna like and do that. Because when you start liking, love will overcome. Ah, I'm a very lovable person. People that okay, people that talk bad about me, some of them they don't know me that The ones that know me, eh? the ones that know me, real life, they know. The ones that know me, but you hate me. Deep down, they know I'm not a bad person. They just cannot stand me. Mm. Because of of age. And me, my life. God did not bring me in this world to entertain everybody. By force, some people must get irritated by me. I'm sorry if I am disturbing your life without even knowing. Ah, I'm sorry. I cannot control everything. I am sorry, but I will not stop giving you fire, giving serving beauty. Okay. Serving because that's the only crime I commit. Always looking beautiful, mm-hmm. always looking my best. Talk about your products. Minding my business. This is the only crime I commit. So if at all that is what I do to you, I am sorry, but I'm not gonna stop. I'm keep on going. Um, say binga started legi jawli barina waji barina. Um, you come across too many challenges. Right. What are some of those challenges? So you can rek. because pour nga ex fi nga ex ni du ay caaxaan te du ay fo liggéey rek mo la ko mun a may am nga ay challenge si nga xamantene nga ak mom ci along the line yeah you have some challenges ya. people will just um they will just want to discourage you hanga di la wax ne da nga advice fekk an advice but they don't even mean it xam or you have people that are in the industry ñoo xamantene ñoo la jitu ci li nga def but they see you coming they see you as a threat naka nga mel ak yeneen designers Mm, like how? Same relationship, no mel. Like what kind of a relationship? willing, at least say hi, you know. Yeah, if I meet, we greet because lady life, yeah, everybody's on the internet, you know. So we'll interface. If not, well, we move because if you see me and you're acting like you don't know me, so manubo okay, then continue such a lane, you Understand, guys. so yeah, I only give back the vibes that I receive from people. But mm-hmm. I can be nice to anybody, depending on the vibe that I receive, because I know how my problem I can. Anyway, if anybody see me, well, I am open. If you say hi, I will say hi back. You understand? Well, maybe if I see you first, ah, someone says I can you. But even if I see you, if I don't see your face, you if you want ko dee def yëfi jigéen dama xaar moom mu nuyu ma wala ni ma jaay na te ñun ñëpp ñoo nekk si benn uh, benn benn I don't look. tell you how is man I don't look at people I don't mm-hmm. look at your face or look at you or see what you you're trying to do or what you're trying to tell me at the end of the day all I know is so ma gisee say wow I will talk to you if I see you and I recognize you and I see nice on your face because Manta, i'm all about energy if i'm around you if i don't get that energy i cannot vibe with you mm-hmm. I, I i just cannot help it i'm like that type of a person Manta, a lot of people that don't know me see how much i'm the free i don't when they new on it do my rosnet okay naka nga dee deal ak sa customer Eh, because léegoo léegi nit yi dañ dee gis ne ah, comme am na ñi nga xam ne soo demee si seen bitig yi ñu laa jaay man la xay man la sëy na bu mbey wala man maay borom place bi ñu ñëw di la nuyu sax wala ñu fekka la fa wala nga ñëw fekka leen fa jaala doo leen nuyu faale woo leen how do you deal with the customers well when it comes to customers um you have ba pare Gambia am nañ benn habit sometimes nga dee jënda si bitig sax just a mere thank you pour ñu wax la ko sax c'est problème nga jënd seen product wala jënd seen anything duga si bitik jënd dara pour ñu ne la thank you sax pour sign uh, of appreciation we have that problem let me tell you Gambian bi it's not only comme kuy jaay or not we are not that that that appreciative naturally mm-hmm. because see yarin bi la commencé let me tell you everything is charity begins at home when it comes to training most of the time. We're not that that that that eh, appreciative. Gambian bi i am complex. Then, ko dee yóbbu si liggéeykaay yi dañ ko dee dugal si néegi sëy sax because we are not expressive we are not appreciative when I say that I'm not saying everybody is like that not everybody but I'm just saying generally Yeah. yaa you understand i am not your hand. Lulula you bury dinko hawa lack. Yeah. Yeah, you understand. So that is uh not one person, not twice. Because Jack at boo gis daf dee dem jënda mm-hmm. tey koo fi gis am bitik dangaa dem shopping feneen ak feneen hmm, am not yoo xam ne I don't I don't sell them I have to go and buy them mm-hmm. so it's something general well if you meet me at my shop because nit do duñ dee remember Hmm. sometimes nit ki mun naa yoo ngeen waxtaan waxtaan bi neex mu dem sax but sometimes you remember to say thank you man nag duma musa duma musa attack liggéeykat or even say anything to my liggéeykat because of that because the thing is nit ki daf dee mun a faate yeah but fogloo customers are customers are always right yeah very right yow mi nga xamante ne yaa moom business bi you employ people and you want you more customers. You all, no, why come not? on. Let me tell you one yeah. thing. Whether you say thank you to customers or not. Yeah. Let me tell you. For example, mm -hmm. if at all you open a shop, you're not selling anything good, but any customer that no. come and wait, that any customer that come and buy, mm -hmm. they go, eh, oh, thank you, thank you. You think that thank you will no, bring them back? Say tamit ba, I am not trying to. Sometimes di nga gis kuy kuy kuy jaay um, kuy joxe quality thing wala mu ngay jaay li nga dafa baax. but the way ni moo eh, lii ak nit yi ni moo eh, liyee nit yi. xam nga am na ñeneen nit yi dem na am na ñoo xam ne mindin la mindin kii lan la kii xanaa moom rek moo fi am lii. ndeysaan xam nga am na ñoo mhm. xam ne dafa am na leen yàlla bindee. Mhm. na ñoo xam ne they have this complexity. boo xamante ne people cannot understand I don't blame people. Mm-hmm. yeneen saay let people understand people. I'm not doing this to defend me or xam nga mënoon ngaa nekk ma laa wax man personally. but mm-hmm. lu maa wax nii maa people. Mm-hmm. because li nga wax ni nekkuma si di gis suma boppa kese. because ñuy jaay bari nañ ñi am businesses bari nañ te ñëpp nit lañ. tey man mun naa ñëw fii di wax a yow wax ni nice ëllëg ma fekk feneen. you cannot talk to me like this. True. Because I don't know what you're going through. Mm-hmm. Dega. Because you saa say, da nga dee mën dem si jambo." When you're at a bad day maybe they are not like that always. but every day is not a bad day. but you come no don't make every day kan moo lay dem si bitiki every day. a mm-hmm. lot of people talk about people because like when they are once mu nga can nit si bad day twice or even three times tey nit ki mun hey wujai mu you touch and they day xaalis bi yëpp nag nga ñëw fekk ko cultivation kooku mu ngi jaxasoo ku dem mu ngi war a fay ren mu ngi war a fay mu ngi jaxasoo moo def yaa ngi bëgg kooku attention am you cannot get their attention at that time I am not talking for myself because man if you come to me I can be nice to you as much as possible I will be open to you as much as possible if you need to know anything about my products I will talk to you as much as possible tamit yow as the business owner nga employ nit ñu lay liggéeyal one nga leen let them always be nice to people. You always tell them that. Exactly. But some of the time, most of the time, you're not there. You're doing other things. You cannot control what is happening behind you. If any customer come to your uh, place and then the person was not nice to them, let them query it. You try and you get to your direct new Nelasaki is not nice. Any customer that does that, I come to you. I said, my customers are complaining about you you have to be careful daxanaa liggéeykat du benn yoon du ñaari because of that because they are not nice to customers. I said to them man liñ ma lee saaga rek doy na liñ dee na seen dafa réew seen ma xamu boppam doy na yow tam nga ñëw tegu ci bëgg ma se doole no don't do that because man I know tey da ngaa tase ni mu se sëy dafa réew da ngaa dem si place am samula mu afen. jaay affaire nga dem ëllëg keneen mu ne hé sëy dafa down to at. dama demuma watana. man customer ma maa ngi fekk foofu ma di réeloo ok maybe sometimes nga ñëw fekk ma maa busy because mostly I am busy I am the students, I am the salon, bi. I am the atelier, bi. I am the production behind Philip. I am everywhere. Danga they teach. Yeah. You teach them hair hair dressing. Yeah. And makeup. Ak makeup. Then they fight. Of course, yeah. Nakala It's fine. They're they're actually coming every bad beauty J happen and How many people gonna accommodate? Um then there are morning and afternoon classes, mostly maximum the manager up to 15 to 20 students for morning. Then you see morning we and afternoon. Maximum afternoon. the manager up to 20 students per afternoon, 20 per morning. I understand. But depends on how people come. Sometimes you will have 10 students in the morning, 10 in the afternoon. It just depends on the batch. And I don't mind, even if I have one student. I <laughs> still deal with the business, teaching, bake, you know. Yeah, I'm, I actually do the teaching too, but I have other people that help me. That's why I have to employ because don't matter if you have to employ and and do um, do some and let others handle some. You understand? Yeah. si yan lañ laa séntu ndaxte xam na ne bugga nga gën a grow big ubbi school bi nga xamante ne neka nekk skill center I'm working on that okay so what ñu procès wax you sa projet gi say fan lañ koo gis ah, ba pare fan nga for the past four years ak léegi ban different la am ah it's massive difference mm-hmm. it's it's it have been great and I lost counting I'm nga nga nekk di count count xam nga léegi nga lost count mm-hmm. to be honest that's it all I all I want to say well God has been good for me God has been good with me to be honest. Um, since I started my business, I've been progressing and progressing. And I do hmm, I'm doing little bit much, because there are people that I meet doing what I am doing. <laughs> Where I am today, they're not even caught up. What there. is the secret? Not more there's, the there's secret no secret. I'm full of that like hard work and bold and make sure nobody um okay, nobody get to me nobody get to me there's nothing you can say because that's my biggest secret I don't let people's I don't let people define me I don't let people distract me okay so school do you have partners well you, you, you do have it no alone my business is solely owned by me I have no partner it's solely owned by me yeah. projects lañoo you si Saina Bumbe. Ah. ak fan lañ laa seen in the next two years to come. xaaral ma gàttal next five years next two years to come or one year to come. Well, I'm working on expanding. Man, I work on expanding every day. So you will see a whole lot progress. Okay. I cannot say exactly this is it, this is it, but maybe one of my biggest project that I am about to get into now is my app its big. <laughs> it's its big. Ah, mm-hmm. <laughs> look at how many companies we have in the country here. How many companies have apps? No. How many? Or look at my sector where I am. Kinda idea of this app new into you? Okay, man. I okay at a very young age. I I am a digital person. I'm a very digital person. I like being online. No, so no, I, am like, <laughs> I can. I love this part of you. <laughs> yeah. Well, it's not Hajan. You see, it's bold. Yeah. You see, when someone is bold, they see you as Hajan. Yeah. We are Gambians. We are always confusing our. Yeah. People. No, no, I'm just. It's like, no, no, not you. But I am just this. saying, it's mm-hmm. not you. Yeah. It's not. This is society for you. Sometimes you're part of the society. You think like the society. You don't even know. It's not you. It's the society you're from. Mm-hmm. That's the concept. That's the notion. Understand nga ñu tuubóol kii xajaan rek sooy sant sax loolu la wax sax jigéen tam jigéen baax na nga xajaan baax na nga def la sax fel felaale def sa tuuf bu baax xëy lu neex am skin bu nice am makeup bu na <laughs> I love that. xam naa ne xam naa ni tey ñuy seetaan ak yow wax ñu ñoo yàqul ne lekk ne waaye si la waaye si la bokk you bold enough to come out and talk about yourself. I can talk about anything I want. To. Exactly. I'm not scared to talk about anything. Exactly. I want choose to talk exactly. about because I don't like people. Because I'm not nga xamantene tay su fekkone nañ leen wax ne yow yaa war ñëw ci so bi hey am na could you imagine i am not ñu la call in advance I'm not gonna talk about this then I called straight away. And well, if, if I told you, you told me, ah, we were going to talk about the kid. Nah. I was telling you, I was going to tell you strictly, I don't want to talk about it. Nah. Man, this platform, you la yow man it's a boss nga why fee my fee boss plateforme bi waaw nanga sóoraa next time I'm gonna nu bañ ñëw de can you? so bañé ñu tamit ñu ne waaw sëy non da ngaa ñëwaat da ngaa ñëwaat ma yow fim mu nekk ni gambien Talents nga engagé <laughs> oy ma gambien Talents ah, nga engagé ñu ñamee dara dañ lay eh, topp eh, eh, <laughs> dañ lay oy ma dañ lay top <laughs> bu dégg sama diyaare on sey ay ko ngi ma ko doon wax nga né ma bi nga ñëwé Dubai rek ma text la wallahi may la yow naka nga xamee na. ñëw naa. dëgg bi is too small. ma ne la ah say déggaat naa leneen de Nakala? you wanna talk about it. Well, I don't ñu waxtaanee ko ah, su eh, ah, ah, ko defee ñu ne waaw jokk nañ ki nga xamante ne mooy Sainabou Mbye gis ngeen ko waxaat ne ñoom this is Gambia for us people don't wanna come out. information is power people need to know si level bi nga nekk nit yi dañ ko war a xam because. In celebrating, in the moment ngeen choose that part rek si I am want to learn that privacy no I do not choose this part I don't know man so you know why ma waxee celebrating? nga like, it's weird to me say suñoo This will have money. you are a millionaire wax nga ko fi no, yow yaa ko wax yaa ya kowa. yaa kowa. wax understand nga tey di youngest millionaire nekk jigéen am sa am sa ay am sa school am sa ay ay business di def wonders yow suñuy compté ñi nga xamante ne dara lañ ci dëkk bi duñ la fi bàyyi de trust me ku iñaanu rek ku iñaanu rek ak li fi jot a jaar yëpp ba tey yaa ngee muufoon ba waay waay waay waay waay ah te yaa ngee gën a star ah, naar bi daal foo ko xorom su doon ñeneen la kenn déggaatut leen waaw I know yeah I know yeah but anyway but still you moving on yeah te yaa ngi def wandat loolu ñun dañ la see encourage rek ba pare di la si congrats rek di la wax ne noonu la <laughs> yooni ndaw su naree dem du neex yoon bi dina bari ay xaaxaan dina bari ñu la fakastal pot yow yaay bul faale bul toppatoo waaye del sóoraale ah di leen sóor mu ne nit ku lay jéem jéem jotul la dina seet ki la gën a jege mu jaar la fa waaye bul faale bul toppatoo waaye di leen sóor daf ci am solo exactly ah, ma bàyyi la rek nga rapport <laughs> lii ngiri ti tap ko waaye ba pare ba pare képp ku ma invite c'est sûr dama doon a sëy dañu war a def partu waaye non li dañ ko li lii asivur la understand nga ba pare na leen di xaar si Gambian Talents seen déwénal suuf ah wow nag waaw ndaxte du yomb kii millionnaire la ah, te xam naa ne ay dencal Gambian Talents promotion ah, ah sëy lii duñ si gis nga bii bi dañuy tànn ñu ñuy sedde xaaral ba at at bi génn ay force lady ay ministers ah ñi nga xamante ne ay managing director ñi nga xamante ne ci kaw ndéwénal bi Gambian Talents seeti wuñ ku nekk de yoo soo amee chance rek xam nga ñaata nit a dee kool pour ñu seet si leen ah. waaye yow koolu loolu dañ la tànn waaw wax dëgg loolu dama koy wax fii mu leer yow dañ la tànn ah. <laughs> dañ xool ne ki dañ ko wara demal demal ndéwénal yow dafa nit gambe xam la aduna xam la loolu yaakaar waaw ay yalla bu sen yakar tas <laughs> suñ yakar du tas tax xamna la li nga defante ak ñun lu bis li nga defante ak ñun lu bax yow geewal waaw li nga defante ak ñun li nga defante ak ñun xamna naa ndax te géwél kër geewal amna na bu neex amna amna amna na naan bu sedd amna na amna jar bege rek lañuy def <laughs> am na ngalam am na or am na ngelaw bu neex kon lan la zéro stress ñun Gambian Talents ñun ñun dañuy bégalaate askan bi ñi nga xamante ne nit yi dañuy bugg di leen gis mm-hmm. ñi nga xamante ne nit yi dañuy bugg di xam ci li ñuy nekk ñun ñoon la ñuy topp moo tax ñu tuddee gisoo suñ tur bi ñu Gambian Talents Gambia Got Talent bot dañ di bugg di amuñ ñu showcase seen talent bi that's why ñun dañ fi nekk suñ door si open ba everybody ñuy dimbale artistes yi fii artistes yu bari tey dama lay wax ne waroon nañ di jox Gambian Talents alal ba hmm. parce que fu ñu egga Gambian Talents seen loxo bokk na ñoo leen wane ñoo tax artistes yu bari ubbi ay account am ay uh, YouTube uh, channel am ay naka uh, Instagram ak yeneen ak yeneen ci yu tag yu ba pare xamuñ ko woon hmm. ndaxte si liggéey booy def dang ci wala professional understand nga so ñun moo tax dañ fi nekk pour jàppale ndaw ñi te ñun soo xoolee fii ñu fee liggéey yëpp ay ndaw lañ heure bi fii ñu fi am school ñu di ngee jàngale ay xale ak ay yëpp te oh. fayuñ dara am na ñu fee jànga vidéographie am na ñu fee mm. jànga journalism am na ñu fee jànga leneen ak leneen te fayuñ dara dañ bugg a jos dolli si société bi so that Gambia mun a dem si kanam ñun Gambien sax li nga gis ni ay ndaw rek a fi nekk di liggéey so moo tax ku ñu dimbale rek dañ ko dee appreciate mm-hmm. moo tax every time dama dee wax ne fii five pound five dollar five dollar si sax xeebuñ ko at least we trying am na ñu fi am a bigger te xejaluñ si ndaw yi te jàppale wuñ si ndaw yi moo tax ñun suñ gisee ndaw buy jéem ndaw buy taraay dañ dee bugga di toppa sa mbir not ne dañ la toppa wala dañ dañ noosi wala dañ bugga exactly exactly exactly so I have been talking and talking and talking I've mm-hmm. not even talk about what I really do yaa ngi understand comme li ma yëngu right now okay waaye wax nañ si business bi nga nekk di yëngu si defar diw si si design ah, what else do you want to talk about well let people know okay okay léegi yow mun ngaa wax loolu si looy yëngu let people know. Simple, I am. That's it. Let mm-hmm. people know. Like, uh, I am into skincare. Yeah. Yeah. Um. képp koo xam ne da nga bëgg a def seen waxoon nañ ko rek da nga doon ji yaa ngi maa dëkk bàyyi waaw baax na fi nga da ngeen di jàppale ndaw yi non ah ah déedéet seen ko déedéet baax na ñi nekk jooj bi déedéet de continue waaw continue nekk seen waaw continue may naa la yëpp jëlal yow laa jëwal la ne daw naa ba soon nga bay léegi nag. mais ma publicité tuuti. waaw publicité ma ne la ne li ma la wax ma ne la ne yow Gambian Talents dañ lay jël engagé. de bàyyi buñ la de tamit nataal bu nice bi si kii bi gis nga noo fi bellee. ah jigéen dafay jonkoma dafay xees mbaa mu ñëw. <laughs> continue. Then skincare. So basically, yeah, then they young skincare hunger. Then they defar. Then they jai I do. Mm-hmm. I sabu. I scrub. Then they for go jigen hale. Yeah, you mm-hmm. understand. But by the time it, um, most of the time, uh, a lot of people um, don't understand. Man, lima gonna do to skincare. It's mm-hmm. because I'm just tired of seeing people saying, "Yaramidi Yahoo." mostly I'm into body repairing. yaa understand So, demee nga nga diw ba sa yaram damage we try to fix you yaa understand that's more on uh, uh, that's our uh, that's our major focus yaa understand At people yi nga xamante ne dañ dee a am a nice skin color Without jaar si ñun without going